kii di Mimi Touré ak nga xamante moom mooy Ousmane Sonko Walf Quotidien moom daal dina ci wax tey euh, xarito wala sax euh, maanaam euh, dimbalante wala sax dooleel bi nga xamante ne Ousmane Sonko def na ko ni ki démb ki nga xamante moom mooy Mimi Touré moom Mimi Touré bi nga xamante ne mu ngi génn ci li nga xam moo mooy nag gouvernement bu Sénégal gannaaw ba mu rek nekkoon député ca assemblée nationale moom Mimi Touré ni ki démb nee na daal li ko dalee dernière sortie bu conférence de presse bi mu def xam le ne deal maanaam maanaam baara yëgoo ni ñu koy waxee ci moom mooy diggante Macky Sall Sall ak ba parti démocratique bu Sénégal li ko dalee boobu léegi ay menaces lay daal am ñoo xamante dañ koy daal maanaam xoqatal di ko woo ay appel loolu nag nekk loo xamante maanaam méttit lu na ko ni démb Ousmane Sonko daal ñëw yokk ko doole di naqar lu baax situation bi ni mel tax Walf Quotidien daal di teg Mimi naka noonu kii di Ousmane Sonko ci xëtu njëkku yéene kaayam ñu gis Mimi ak Ousmane Sonko jéggiwantoo bi ñu jéggiwante jamono les amis d'aujourd'hui tout à fait bu fekkee principe moo leen boole bu fekkee nag ay géopolitique la ñoom dong lay ñoom dong lay engagé en tout cas euh, bu fekkee Idrissa Seck ni mu doxalee après alternance ni mu doxale waate 2000 2019 2020 soppi boppam mburu ak soow dellu siwaat ci nekk candidat bu ñu xamul tànk bu muy feccee F24 bi xamu F24 noonu tudd mm-hmm. Mm-hmm. Euh, boole lu ëpp téeméeri entité ci wàllu ci wàllu politique ci wàllu société civile di nga mën a laajte àndandoo yooyu nan la mën a nekkee pour valider àndandoo Aminata Touré ak Ousmane sonk parce que ku nekk da nga jàpp ne principe moo tax bu fekkee mën nga muñ ay parti yu mag yu bokkoon ci ay ay alternance comme ay AFP comme parti socialiste nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar te ba léegi mënuñu définir kan mooy candidat wu Benno Bokk Yaakaar nga xam ni politique yi nekk ci Sénégal démb am na ko def papier boobu Djibril Diallo. Euh, def naa yu yàqu ko liir gars yi da ngay gis ñii no Marème Ndiaye dañuy foo ak sénégalais yi de façon globale ñiy def politique dañuy fowe sénégalais yi dañuy fowe électeurs yi moo tax ñu war am fulla tey f ci opposition bi la ñu nekk mais resemblement bi ñuy wootee ci ban principe lañu koy wootee lan moo ci seen jubluwaay lan moo nekk ci suuf. et bul fàtte ni ci biir F24 am na ñoo xam ne fu ñu musaan woote resemblement wala manifestation ñoom ñoo koy dénoncé fu ñu musaan xalaate ak bennoo ci opposition bi ñoom ñooy saboote lu tax bennoo boobu du am fu ñu musaan nase benn plan pour attaquer nguur gi ñoom ñooy def plan boo xam ni day titloo ñu ne ci opposition bi mais ki bañ démb bu nangoo tey am na pecc mu muy fecc te amagul ndaat saa lu ñu jublu ci créer F24. Euh, li ñu ci gën a teg ci bëtu askan bi pour lëndëmal ñu mooy nee nañu nanguwuñu troisième candidature Macky Sall mais du loolu mooy li ñu soxal ñun li nguur gi teg Sénégalais yi tey ci coono ci métit nañu ci wax d'abord parti yi amatuñu rencontre bureau politique génneetuñu ay communique F24 luy seen position ci taax mi daanu seen yoon nekkul ci coono askan bi économique bi ñuy waaj a waxtaan ak Cheikh Diop lu ciy taxawaayu F24. wala ñun Sénégal dañu bëgg a soppi léegi Mimi Mimi Mimi Touré ak Ousmane Sonko peut-être ñoom euh, seen àndandoo boobu kenn xamul pecc mu amul ndaat saay la parce que Aminata Touré ci élection euh, législative yi mhm. mu demee Casamance fan ak dëkk Sonko dafa doon fecc pour di ko ñaawal Aminata Touré moom tey moo gëm principe Ousmane Sonko pour xalaata bokk moom idée mais ça pose problème Aminata Touré bu ñu ko def victime mu PDS Aminata Touré li ma doon wax laa koy wax dama koy boole ci comptable Macky la fukki at ak ñaar nga génn ci nga génn ci juróom-benn weer fukki at ak ñaar bokk ci gestion bi après di ŋàññaat fukki at ak ñaar ça pose problème ci comptable ci comptable gestion Macky la bokk moom Aminata ture kenn du ko boole ci victime mu PDS wala victime mu Macky Sall bon proposition la xalaat la. si bu si ñoom mais euh, xam nga politique moom souvent gars yi mën nañ toog jël benn décision après benn ay rencontre mais doo xam ci ci pandaw ji parce que euh, segam ci ñi ànd dem ci élection euh, am résultat ñoom ñooy dem ba ci biir seen ay xalaat safaano donc bu nekk kët ni jonn ñi bañante woon démb wute xalaat bokk benn idée ci benn proposition xamoo kan moo ci am principe ci li muy wax xamoo kan moo ci gisante ak Macky Sall comme ni ñu koy faral di tuumaalante donc dañuy teg ci bëtu askan bi benn lëndëmte boo xam ne doo xam ci pandaw ja lan lañ ciy jublu mais ci seen ay action ak li ñu nar euh, la ñuy xam ba xam ñoom li ñuy wax dëgg la walla du dëgg parce que boo nee mag Sall du nekk candidat doo ko wax ci toog ci ay réunion wala toog ci ay salle donga ah. boole ci ay entité yoo xamante ni bokkuñu ay principe bokkuñu ay idée bokkuñu ay xalaat donc euh, nu ñuy taxawee opposé wu candidature Macky Sall rek ci benn kuréel bu ñuy taxawal boo xam ni démb wala ci 2022 bi mënuñu woon a laalante dañ doon sànnante ay xeer ça pose problème dañ doon tuumalante ni ci ay principe ci ay idées ci ay couleurs ci ak yeneen ak yeneen donc ça pose problème dañ xaar bu ci ci pandaw ji en tout cas pour l'instant moo koy teg sama ginnaaw loxo di xaar ñoom Senghor nga jeexal vite mu ngoog soxna Thial ak li nga xamante ne moom mooy euh, taskatu xibaar bi la di euh, Babacar Touré suñu naataango la euh, ni ki démb lañ koy daal di bàyyi ndiku contrôle judiciaire lañ koy daal di defal moom Babacar Touré gannaaw nag ba nga xamante ne te woon nañ ko foofu foofule nag nga xam ne moom mooy commissariat central ba sax mu demoon fa nga xam ne moom mooy hôpital principal. Mhm. gannaaw ab feebar ba mu amoon ni ki démb ndax xaaroon nga li ma laaj la laaj ba laaj kii la di Birahim ndax xaaroon nga dëggantaan. Euh, kii di Babacar Touré ñu daal di koy bàyyi euh, contrôle judiciaire jamono yi de. mais contrôle judiciaire euh, dañu koy def dafa am ñett yu ñuy fooy Sénégal contrôle judiciaire kaso bracelet électronique bracelet électronique amul gàcce bu ko gën a rëy ci nit ku nekk gor ba am ñeent fukki at ñu takkal la lu lay jox misaalum comme suñu maam yi ñu doon jaarale gore xanaa ñëw bi ñuy tànn modèle suñu gouvernement yi mënuñu woon tànn modèle bu sew bu pantalon mën a muur benn modèle bi donc moom ci bracelet électronique xanaa pourquoi ñu tëb tëb xaati góoñu rek imposer nit ñi bracelet électronique fond bi ci dem tabax na ay kaso pour kaso yi gën a yaatu pour ñu nekk ci kaso yi nekk dans de très bonnes condition bu fekkee dañuy technique kaso mais contrôle judiciaire moo gën a metti yow nga nekk jeune nekk ci yoonu di tukki di dem ak ñëw ñun la mënoo génn sa réew. yow da ngay kuluñ kuluñ ci benn espace mënoo jàngi ba mënoo faju ji mënoo dem jëndi lenn bitim réew mënoo génn mais loolu mook ak njaam benn la moo tax suñu gouvernants yi nañuy bàyyi xel ci ñu ñu yilif te jiital yërmaane ci ñoom day doxal bi ci des mooy taskatu xibaar doon naa ko wax bi Birahim doon na ko fekkee toujours dama doon mus di ŋàññi code de la presse bu bees bi parce que dañu jiital charrette bi laataa fas wi bala ngay wax ci journaliste bi Euh, ut carte de la presse def ko farata tey nañ fexe ba journaliste yi ñu leen di fay salaire bu baax ku quitté ci benn média bu mag looy xalaat mooy dem créer sa benn chaîne YouTube parce que organe de presse bi tudd YouTube. Mhm. te di machine sax moo dàq fay patron de presse yi nekk Sénégal. boo yëpp am ay site internet parce que li leen YouTube di jox patron de presse yi nekk Sénégal mënuñu leen ko jox. Mhm. Hmm. bi ci des mooy euh, taskatu xibaar bu créé benn site internet fekk am na expérience presque vingt ans ay Pape Alé Niang ay Babacar Touré mais boo ko ne dootoo génn Sénégal mais rey nga ko encore une fois li ñuy demandé mooy nguur gi nañu gën a bàyyi xel taskatu xibaar yi ñu def seen liggéey fii benn nguur mun def fexe ba foo joxoñ taskatu xibaar yi joxoñ fa parce que démocratie bi leen fal fa ñu nekk moo jox taskatu xibaar bi liberté am mu def liggéeyam